Yo, yo, yo, your Paulo Faboting, aka Paulo Demon. Machil playing and playing too, but you think you mind you to say that. Some guys, some friends everywhere in the world. Malin did you gnaw mo santa yala, magi santa sa nyar waru jur, and you that. yep, bro. Boom. <laughs> Boy a boy music like you la jikon na xalat. in parfois aussi damay jouer foot, gonna musique la gënon na many quoi, Don't don't have entertainment everywhere, even mo in school. <laughs> my entertain guy <laughs> the one professor yep. bon sama ñaari wajur gars yi lu may def bëgg nañ ah li ma mënti dugg gars yi dañ koy loof te ñoo may soutenir bon sama pap mooy sama number one fans. bon <laughs> musique bi may def nii genre dama bëgg a changer musique musique dugg seulement musique sénégalaise uh, musique africaine généralement moom laa bëgg a changer dama ko bëgg a yóbbu fu sori sori. comme ñoom Burna Boy ñoom Davido genre niveau bu mel ni boobu laa bëgg a yóbbu musique bi te aussi beneen style musique laa bëgg a créer aussi. yes sama best artiste ñaar artiste la euh, Dip Doundou Guiss ak Davido par exemple ñoom Baye Mike ñoo ma doon inspiré ci musique man Jacques bi. bon Dip parole bi ñoo ma ñoo ma ñoo ma gën a yéeme quoi. cicatrice aaye bi aaye bi laa xamee Davido quoi te son moo taxoon ma gën a bëgg a def musique non man du ma copie man toujours lépp lu may def suma bopp laa koy defal même ñi may inspiré sax mooy ñaari artistes yi ma la tuddal di boo xoolee dof def defuma gars yi lu ñuy def dama ñëw créer sama propre style man déjà gars yi bu ñuy dégradé man damay ma <laughs> carrière musique boobu bugguma carrière yu gàtt yu ah parce que déjà man dama ñëw pour def carrière am naa sama plan de carrière maa ngi lu lu rëy quoi donc euh, nekku loo xam ne dama koy def like I'm doing it for money I'm doing it for love donc passion laa ci am. bon dafa métti ah. déjà booy def musique te amoo ku jàppale c'est dur mais bon ñu ngi débrouiller loo mënte am nga dugal ko ci studio pare mooy loolu pare defaale clip yi aussi c'est pas facile mais ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. bon Sénégal fii ben artiste euh, presque ñaari artiste la am relation mais artiste mo gëna am euh, relation moy Lil Salam boo xolé mom la njëkk a defal featuring moy suñ criminal love bi mu ngi YouTube everywhere bon inspiration ma jàkk ak ki anglais ak yeneen langue yi français yi nonu déjà man anglais la laa euh, donc ma jàkk dafa nek lo xam te ne namp français dégg naa ko dama koy lak ni <laughs> donc inspiration bi c'est très simple léegi déjà bind ak bind ak waxin bokul déjà loo xam ne da koy bind da ngay jël sa temps dikoy bind ça revient correctement. tip Doundou Guiss my idol. <laughs> non déjà gisaguma benn label bu contacté. contacter. non ba léegi projet mais maa ngi waaj a projet mais ay single la nekk di guiné actuellement. mais déjà job naa sama sama première mixtape pare na mais dama bëgg a tabax terrain ba pare génne quelques clips euh, pare loolu ma doog a génne sama projet. Kandeer ma Njaaku mixtape. dafa nekk loo xamante ne euh, lu ñu dund euh, communauté ma Njaaku donc loolu laa ñëwoon tënk ko ci benn projet jéem ko expliquer pour gars yi comprendre lu nekk suñu nekk entre.

daf ma jox conseil yu bëri xam nga en tant qu'artiste donc euh, finalement ba ma commencé musique aussi ba nekk si ma diggu doole fekk na mu décédé mu ne pourquoi pas ma defar ko hommage donc moom laa doon defar clip noonu te Kaolack laa ko tourné biir Galem donc moom laa dugal YouTube fan yii donc mu ngi ko dem seeraan. bon mois décembre avant décembre may waajaat euh, tourné euh, ñaari clip benn bi maag Lil Salam la bi maag Baye Mike mais bientôt xam naa avant décembre dina génne ci loolu laa nekk nii pare bu ma su ma paree si ñaari clip yooyu laay génnee sama projet mais joxe gu ma dat bi. bon sama fans li ma leen di wax mooy chaque jour nañuy xaar rek dèjà xam naa gars ñu bëri xamuñu ma mën nañ ma dégg mais dèjà xamuñu xamuñu xamuñu artiste bi parce que da ngay génne say say single doo am moyen pour def ay clip mais xam naa clip yi nu muy gën a génne gars yi dinañ ma xam. mais maa leen di wax ñu xaar ma bu baax te dèjà émission bi dana nekk loo xam te ne aussi gars yi bu ñu seetaanee peut être dinañ xam ban artiste la kan muy woy lu neex li ñu déglu nii donc nañ ma xaar bu baax ci sama projet bi bientôt bon pays Afrique <laughs> Sénégal Gambie bi Bissau USA mooy sama dream country foo xam ne ne dinaa dem xam nga gën a yokk sama musique bi man samay soo boo xoolee samay soo yëpp ak surtout projet bi ma def nii lépp ay thème la sax amul sa soo mbëggeel sax mais bu doon dina am soo mbëggeel sax ci laa koy tënkee yeah parce que man noonu man noonu man noonu laay bindee genre man damay da sama musique day jàngalaate day yee nit ñi def ma musique pour xam nga ñëw foo like dis woole musique ñëw xam nga wax li may wax dem sama yoon mi damay jàngalaate loolu mooy sama musique te mooy sama rêve sama dernier mot mooy gars yi dem gën a jàngi loolaay wax sama sama sama morom yi ak sama rakk yi gars yi jàng bu baax déjà ñoom am nañ sens boo xam ne mën nañ nekk xam nga di jàng ñu ñu amul bi nag peut-être ñun <laughs> mën naa ne jàng moo ñu bëgg mais ñun euh, déjà euh, dañoo sonn ci jàng bi aussi parce que dafa am euh, mission yoo xamante ne faa ñu dawi ji ko xam mën a teral suñu waajur yi donc amuñu pour man amuñu temps pour fii di jàng mooy li may sant gars yi mooy gars yi dem jàng bu baax a baax am jom fula ak fayda surtout Winning alunana, nampalimbur kawaran pejuana, mate baja belangku biwamak, chicken bulu chicken pikang aja, ingan bulu ingan bula wara, atempo kale ceriaya, bila tike pibani balanya, mengaldo ka pabaru ka jararu ka salaru banyak wing. Yo, it's your boy Paulo Dimen, da parir ya kan der ma jako ci legi yo kubegah ham samai samai samai samai samai samay nouvelle on youtube paulo dimen facebook instagram twitter partout c'est Paolo Di Mel foo dugg rek di nga ma gis bra